ñi déedoo àdduna suñu borom xare leen àjjana fi daw si gars yi ñu on avance ensemble dans la magie des e-Sport TV l'actualité en continu actualité bi ñu fas yéene waxtaanee ki nga xam donc Bamba Dieng ou Ahmadou Bamba Dieng bi nga xam actuellement Igor Tudor annoncé na na am lu mu wax ci jëm ci Bamba Dieng ak aussi li nga xam moo jëm ci prolongation du côté de l'Olympique de Marseille loolu la ñu fas yéene waxtaanee mais tàmbale ko nag ci Premier League ak li nga xam ne nag donc entraîneur du mois ñii la ñu tànn donc Franck Arteta également Jürgen Klopp bokk ci ñi nga xam donc mooy ñeent entraîneur yi nga xam ne nañ ne fi ne nii ñoom ñooy meilleur entraîneur du mois de décembre bi ñu Guen di euh, génn kii du Juan Laporta nee na Gavi mom euh, à partir du mois de juin lañ koy dadi officiellement bolé ci groupe professionnel parce que actuellement Gavi dañ ko déclaré comme ku nek également ci centre de formation bi waxna aussi ci li nga xamné nak moy donc ci yenn euh, joueur yi jëm ci ki nga xam donc moy Bernardo Silva nee Bernardo Silva mom Barça du ci mës 40 millions pour dadi di koy jënd ndax loolu la ñuy laaj jamono ji nenañ nañ bëgg nañ mu ñëw waye lool mom fassé yéene ko ci tek donc lool non di bëgg-bëggu nak ñi di wa Barcelone Barcelone notamment supporters yi nañ xaar ne du a nekk ren ji ndax Laporta neen ren ji moom fas yéene wuñ def ben recrutement nee aussi qui dit Sergio Busquets actuellement ñom ñi ngi jéem wut ko remplacer nee nañ am nañ dëgg naam am nañ Frenkie de Jong mais nee ñi ngi xol yenen joueur mais lool nak da koy bàyyi Xavi ak staffam ñu daal di koy xool Sergio Busquets aussi moom Laporta xamale ne na ne actuellement amna ay proposition yu jogé ci États-Unis et que bu ndorteel bu saison bi jéxé nañ tok waxtaan ci ki nak également di Gerard Piqué Laporta nee na moom ah, Piqué amul ñu ben problème mi ngi ñaan sax mom euh, prochainement bu ñëw nek président du Barça nee na xam na daal objectif la pour Piqué et loolu la koy ñaanal aussi ki nga xam ne nag donc Karim Benzegol Benzema journaliste français nak un courrier de gi ñoom la mom la def ko euh, footballeur de euh, l'année 2022 il a nga xamné Ligue des champions jël na également li nga Ballon d'Or qui ki di Karim Benzegol Benzema li nga xam nak moy donc équipe bi Al Nassr ah, donc composition probable yenn joueur ñoo nar a ak Cristiano Ronaldo ngeen gis ne ba Abou Bakar mo a nekk 9 Ronaldo Talisco Martinez Alassane Luis Gustavo euh, Ganam euh, Alamri Gonzalez Conan ñom dal lañ gis ne ñom ñoo fas nek nekk onze bu Cristiano Ronaldo ak Al Nassr pendant ce temps euh, ki di Galtier xamale na ne Lionel Messi musta wax benn yoon dafa bëgg ñu dal di koy accueillir du côté du Parc des Princes nee nak mom moom Galtier mi ngi ñaan mi ngi yaakaar ne supporter dañ ko accueillir mais Lionel Messi musta wax ne dañ ko defal ay fête ak mais aussi officiel ni di donc donc m MMN donc MMN muy Messi Mbappé Neymar ñom ñëpp peut nak hein match bi di ñëw donc di jëm ci coupe de France duñu nous ndax Neymar mom dafa am li nga moy donc blessure Messi dañ ko dafay rogo reprendre Mbappé dañ ko may repos donc Neymar nak ah, lan moy blessure bi mu am moy que blessure bi mu amone ci coupe du monde ba légui taxoon mu jouer sax après ah, Galtier ne daf ko bëgg bàyyi mu wër wër wër carrément parce que dafa soxla ah, Neymar notamment ci Ligue des champions yi ñu jëm donc bëggut mu amaat ben surprise ci gañu gañu bu ni mel mais aussi coupe de France bobu nonu qui nga xamné aujourd'hui hein, Moi, le gardien numéro 2 euh, du euh, Paris Saint-Germain donc Mathieu bii il sera titulaire donc c'est lui qui sera dans les cages hein, parce que Donnarumma donc dañ koy tek ban donc pour la première fois ngeen gissat encore notre gardien emblématique du Real de Madrid Dadi di nekat titulaire avec le Paris Saint-Germain Maulo Gusto nak mom moy priorité du côté du Bayern de Munich gannaaw bi nga xamee ne di Pavard Benjamin Pavard dafa bëgg a jóge Gusto di arrière latéral euh, bu Olympique Lyonnais Bayern dal mom la fas yéene mais en tout cas ciblem la ki nak di ngeen gis di Azzedine Ounahi actuellement dafa gaañu dafa am gaañu gaañu moo tax joué wul mais nee nañ daal Napoli daal. mo gëna a pour jënd joueur bi nga xamné révélé wu na ci coupe du monde bi mais décidément loolu problème joueur africain bo bu africain djog ah, ci coupe du monde lo toj toj gaay dañ lay sous côté quoi alors que mom actuellement c'est le meilleur joueur milieu de terrain ci coupe du monde bi ki nga xamné également moy également mooy ah, Milik Milik moom nga xamné nok wa Marseille ñoko al Juventus Juventus nag neen dafa bëgg lever option d'achat bi pour daal di jënd définitivement ki nga xamné donc mooy l' polonais ki nga xam ne nag aussi Amadou Bamba Dieng ou plutôt Bamba Dieng Dieng plutôt ni ko gars di bëggé Bamba Dieng Momnak Nak, moom euh, Kid Hugo Tudor annoncé match donc contre hier les Coupe de France Bamba sera donc titulaire l'attaquant sénégalais donc day départ ci match boo xam match coupe de France la donc lolo Hugo Tudor daal di yëgale ci jamono jo xamné aussi ñi ngi wax temps de jeu bo xamné mi ngi koy commencer di am nank-nank Bamba Dieng bi nga xam ne tax Suarez fa ñëwoon gars abalé ko ah, fi mu ne nii il retourne le sourire parce que selon les dernières informations mom ak staffam dal mom ah, manager agent am ak ñooy du mel dañu fas yéene ak Marseille lolu jëm nak ci proposition bo xamné Marseille dañ ko bëgg defal pour mu daal di prolonger contrat donc fan yi ñi jëm donc Bamba Dieng dina tok ak dirigeant Marseille pour waxtaan pour waxum prolongation do gars il est ouvert à rester du côté de l'Olympique de Marseille il est ko joxe garanti et tout te aussi dirigeant Marseille am y a ne Bamba Dieng dina di joueur nous nga xam ne Tudor ak aussi qui nga xam aujourd'hui le patron on le dit donc aujourd'hui euh, le patron de l'Olympique de Marseille N'yom d'Alin chez de Longoria gars c'était les informations que je voulais vous donner toujours un plaisir de vous servir woy leen like et surtout woy leen di abonné pour agrandir la famille on avance ensemble Jack and